دعوة ربي بارك فيها علماء فاضل حافظوا عليها دعوة ربي بارك فيها وعلماء فاضل حافظوا عليها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وأقولها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس سلفي وأقولها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس شفت القيم أبو إدريس عقل وحكمة مسخروا ليها عقل وحكمة مسخروا ليها دعوة ربي يبارك فيها وعلماء فاضل حافظوا عليها دعوة ربي
salaamu alaykum maaleykum salaam.
wala dañuy ñaanal docteur Mouhamed yàlla subhaanahu wa taala sàmm ko aar ko léegi ci dañuy leerlu ci suruuti sixatul azan ñetteel bi fi ñuy wax an yakuuna zakaran léegi ci fekkante ne xale judd na léegi góor bu fa mun a noddu ci nopp xale bi neewu fa est-ce que foofu jigéen dina mun a noddu loolu la ñuy leer salaamaaleykum.
waaleykum salaam waaw nodd gi ñuy charte ne góor rekk moo ko mën a def mooy nodd gi ñuy yëkkati baat ñépp di ko dégg moo tax ci biir leeral gi wax naa ne la jigéen mënta yëkkati baatam ca kaw di nodd nit ña di ko dégg jigéen mënta yëkkati kàddoom ca kaw di nodd nit ña di ko dégg amaa nodd gu ñuy yalu nag kooku zikr la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu ko defee kooku zikr la tudd yàlla la xale bi ñuy noddal kenn du yuuxu ci noppam ndànk lañ koy def déey ko ko ay wax lay doon nag ay wax yoo xam ne moom dana dégg liñ koy déey waaye doonut loo xam ne lu ñu yëkkati ci kaw la waaye nag faawu baat yi moom dana génne ci gimiñ gi ba doon loo xam ne ab nopp mën na koo dégg nga teg ko ca nopp gone googu yi mu bokk ci kàddu yi muy jëkk a dégg moo tax lu bari ci nit ñi dañuy bàyyi ba bésu tudd bi ñu door koo noddal waaye fekk na la gënoon a mat mooy teel koo def lu jiitu loola ba xale ba daataan dégg coow lu bari la ak yeneen yu ñàkk solo ya nit ñey wax ña koy seet si ñu gaaw jiital ak nodd ci noppam mu jëkk a dégg loola loolu mooy xikma bi mooy li ci gën moo tax yonente bi alayhi salaatu xale bi da daan judd rek buñ ko woo bu ñëwee bu ko defalee li ñu tuddee taxniik day daal di nodd ci nopp bi nit ñi dañuy jaawale léeg-léeg yi nga xam ne bisu ngénte lañ koy def ak yi nga xam ne bu la neexee mu teel bu la neexee nga xaar ba bisu ngénte la waaye teelee gën ak moo gën yooyu bokk na ci nodd ci nopp bi naam kon boobu moom jigéen mën na koo def
salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah cheikh ñu ngi lay ñaanal yàlla sàmm la barkeel léegi dafa am benn laaj ñu bëggoon ci leer la mooy yàlla dafa def ñun suñu jàkk par rapport ak yi xew léegi nga xamante ne dafay joxe heure yi lu mel ni montre yeeg genre léegi ñun suñu jàkk daanaka heure bi muy sone heure yi ñu def noonu nga xamante ne si montre lay ànd ak lay faa ak téléphone yi heure boobu ñun léeg-léeg dañuy nodd laata waxtu boobu di jot léegi dama doon leerlu ba xam ndax xam waxtu boobu noonu su defee su jotee mooy tekki ne waxtu bi dugg na walla parce que ñun dañuy nodd lu jiitu montre yi di walla portable yi di di di di di si di sone léegi te fekk da nga wax si fii ne foog waxtu bi dugg pour ñu pour ñu mën a nodd léegi dañu doon laaj nga leeral ñu foofu daal jazakumullah xeer
waaw su fekkee ne day portable yooyu nga wax ak montar yooyu njëlbeenug waxtu la ñuy sone nga xam ne wóor na ne am na ab xóotaay akub sewaay akub wóoraay boo xam ne ci njëlbeenu waxtu wi lañuy nodd la ñuy sone su boobaa mënee su koo jiitu ci nodd ndax loolu la muy firi mooy nodd nga te fekk waxtu wi duggagul bala ngaa nodd amal yaqiin ci ne waxtu wi dugg na loolu faaw nga bàyyi ko xel bu baax a baax su fekkee ne daal montar yooyu moom yu xóot a xóot la ci wàllu waxtu ak nattaleem nattale gu wóor la kon bul ko jiitu bàyyil ba mu jot nga door a nodd nodd nag fii ci ndakaaru moom daanaka ak jàkka yi fi nekk féewaloo gi dafa xaw a jéggi dayo ci ci waxtu rawatina du mel ne waxtu tisbaar nag moo ci rawati am na ñoo xam ne ci deux heures et quart lañ kole ci waxtu am ñoo xam ne depuis ay at dañuy tàmbale ci wa- waxtu wu jëkk wi kon loolu lim lay jox mooy ay nit danañ nodd ba julli ba ñibbi seen kër ba xéewlu sax bu la neexee nga wax loolu door a dégg ñeneen ñuy nodd di woote waat loola nag xëy na doonut lu yàq dara ci julli gi waaye nekkul phénomène bu rafet ndax ku sañoon jàkk yépp dañuy am waxtu wu ñuy nodd am waxtu woo xam ne ci la ñuy julli rawatina ci benn dëkk kon lu mel noonu jàpp naa ne ña doon soppi waxtu deux heures et quart wa di ko delloosi ci wu gën a gën a teel jéego yañ waroon a dox ba convaincre jàkk yépp ñu dikk ci waxtu woowu loola dafa amoon dafa desoon des googee mu des nag moo indi lu mel noonu am mooy ñii di nodd ci bii waxtu ba julli ba dem ñeneen ñi door a nodd ci beneen waxtu da di nag mbir la moo xam ne dañ koo bàyyeeg nit ñi maanaam organiser wuñ ko waaye loolu munta am ci réew yi nga xam ne wàllu lislaam dañ koo jël wala wàllu diine sax organiser ko teg ko ci teg ko ci yoon yor ministère boo xam ne moo yore loolu ministère bi bu boobaa mooy génne waxtu waxtu sàngam ci la ñu nodd tisbaar waxtu sàngam takkusaan waxtu sàngam timis duñ yem ci sax waxtu sàngam la ñuy nodd waaye dañ lay wax ne diggante nodd gi ak liqaam gi sax nàngam la nga xam ne sañu woo ca sañoo ca yokk virgule am na montre yi ñuy wékk yoo xam ne ci courant lay marche dana la won heure bi nga xam ne ci la ñu war a nodd wan la itam ñaata minute la ñu war a toog taxawal nga xam ne bu ñu xasee nodd rek da ngay gis bu fekkee vingt minutes la day daal di tàmbali di wàcc dix neuf dix huit dix sept nangam bu ñëwee ci zéro rek kay taxawal daal di taxawal loolu nag luñ organisé moo ko man waaye su fekkee ne kenn ku nekk fa nga nekk yàgg sa yëfi bopp la lu mel ne lii ñuy dund rek loolu la ñuy dund naam beneen.
ah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
salaamaaleykum.
nasalullah an yaxfazakum wa yazidakum tawfiqan lii fii ci suñu jàkk yi dañuy dégg ñaari façon nodd am ñi nga xamante ne suñuy nodd dañuy wax allahu akbar allahu akbar noppi tuuti wax su ci suuf am ñi nga xamante ne duñ ko def léegi ñaari yooyu ban moo ci gën a sax ci sunna ak ñaareelu laaj bi lan mooy àtte nodd ndax suñu nodduwul am na luy yàq ci julli ji atteb nodd waaw ci boppam waaw nodd kay farata la moom jëmmi nodd ci boppam farata la ci gépp jul bépp jàkk boo xam ne mbooloo dañ fay julli si fi nodd di doone nag sunna mooy yow soo nekkoon ci àll di dem ba mu yàgg waxtu julli jot ngay bëgg a julli sunnaal nañ ci yow nga nodd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa wax abu saidin al xudri ne ko yow kat dama laa gis nga bëgg ab àll lool bëgg itam ak jur lool saa boo nekkatee ci sab àll ak sa jur bay nodd na nga yëkkati sa kàddu ca kaw ndax amut lenn lu lay dégg muy jinne walla leneen lu dul mu seedeel la ëllëg kon même ki wóote wut sax nga xam ne wóor na ko ne moom dong bu noddee it mooy julli kooku sunna la ci moom mu nodd waaye foo xam ne dañ faa war a woote nit ñi war a wuy si moom foofa nodd farata la fay doon la doon laaj ba nag mooy lanati ah waaw ñaari façon nodd yi nag ñaar yépp a am dalil ñaar yépp a sax moo tax boroom ngir yi ñu ci nekk dañoo am façon buñ tànn ñii tànn bi ñii tànn bi waaye yépp a am dalil nag kii yëkkati waxaat ca suuf door a yëkkatiwaat ak kii boole lépp yëkkati lu ci nekk am na dalil boo xam ne moo ko dëgëral donte nag dalil yi nga xam ne moo gën a mooy mooy tegtale yëkkati benn rek dem doo defaat tarjia di dellusiwaat yooyu ñoo nekk ci téere yi gën a wér muy téere Buxaari ak Muslim waaye ànd ak loolu nag lépp wér moom lépp sax mi ngi mel ne rek ci wàllu liqaam am na ñoo xam ne niñ koy defee ak ña ci des nañ koy defee am nag wuute gu ci nekk waaye boo ko xoolee bu ci ne lii riwaaya la lii riwaaya la
salaamaaleykum wa rahmatullah Salaam.
yal na yàlla yokk xam-xam bi barkeel ko dama amoon laaj ci bunt bi euh, wax ju muy wax ne an yakuna min waaxidin ma doon laaj foofu ndax euh, kii nodd moom su noddoon ba gag fenn sëqat bu metti jàpp ko ndax moom fa mu taxaw bu ko nit di wuutu sañ naa tàmbale foofu continuer wala day dooraat wala ci wàllu mu waalaat bi tamit moom est-ce que foofu sañ naa sëqat bi bu ko dabee mu sëqat mu sëqat lu yàgg ba ba mu arrêté mu dooraat ca fa mu yemoon yeggali noddam ñetteel bi mooy euh, ndax li ñuy wax ne foog mu nekk ko xam waxtu te Abdullah ibn Maktum dafa gumba woon ndax loolu nit ñi dañ ko ciy dimbali wala
alhamdulilah Euh, loolu nga wax day dugg ci li ñuy tudde baabul ahdar maanaam ay ngànt bu ñuy wax ne na toftaloo ki dara gaar loo xam ne tax na mënta toftale kooku ngànt la su ko dogee faj aajo jooju ba noppi door a àggalug noddam loolu dara nekku ci maanaam ma ngay nodd ba mu yàgg ak sëqët gu metti dikkal ko mu sëqëta sëqët ba àggal delsiwaat su boobaa day continuer fa mu yemoon rek dem su fekkee tële na it nag ba mënta mënatul a continuer keneen ñëw di ko ca wuutu boroom xam-xam yi dañuy wax ne ñaari xiyaar am na bu ko neexee mën naa tàmbaliwaat bu ko neexee it nag mu continuer ndax lu ci nekk lu mën a nekk la ab woote rek la waaye su fekkee daraa ko gaar daal xamal ne loolu ngànt la taxaw na di nodd ba mu yàgg am lu koy màtt ci biiri sëram mu wëlbati ko taxaw fële yëlëb sér yi ba la koy màtt génn mu rey ko daal di delsiwaat continuer ak noddam loolu dara nekku ci jeex na waaw xam gi waxtu wi mënta ñàkk su fekkee ne mën na koo xamal boppam mën na koo xamal boppam loola mooy lañu tànn su fekkee mënu koo xamal boppam comme li daloon abdullahi ibnu ummi maktum nekkoonum noddkat ba noppi nekk silmaxa faaw mu sukkandiku ci ku xam waxtu loolu moo tax léeg-léeg daana xaw a yeex a nodd bañ naan ko asbaxta asbaxta gaawal nga dem noddi asbaa na ngi bëgg a set kon am na ñu ko daan contrôler ñoo xam ne ñooñu léeg-léeg ñoom ñoo daan faay tuuti ci waxtu wi ba muy bëgg a tardé ñu door ko ko yëgal mu door a gaaw a dem daal di nodd naam
bu amee asila yi ñu bind foofu waaw kii euh, daf ñuy delloo ci bunt bi we- weesu woon daf ne am na ci jigéen ñi ñoo xam ne xàmmeewuñ li ñu tudde alxayd ak li ñu tudde al isti al istixaada maanaam xàmmeewuñ reegal seen baax xàmmeewuñ ko ak li ñuy tudde dereti jorngel muy deret joo xam ne daa continuer ba reegalam jeex ba noppi mu continuer arrêté wut ni mu koy xàmmee nii rekk la léegi daal amoon na baaxam boo xam ne xam na ne nangami fan ci weer wi ci la ko baaxam di feeñu su masaan ñëwit daana continuer juróomi fan wala juróom-benni fan nan jàpp ne la première ci weer wi la comme misaal ñu ne daal la première ci weer wi la ko baaxam di feeñ feeñ na toog na juróomi fan yim daan toog arrêté wul mu dem ba matal juróom-ñaari fan mu arrêté mu tàmbaliwaat di julli ñaari julli ñetti julli deret di dellusiwaat mu arrêté waat continuer ci benn bis ñaari fan mu arrêté ti su bëggee julli fii mu dellusiwaat di dem ak a ñëw dañ lay wax ne diggante fam ko gise woon muy le premier boobu ca weer wa li feeg la quinze jotul maanaam li feeg amul fukki fan ak juróom lum fa gis lu ne na jàpp ne régal la régal bu ñàkk a normal rek la waaye nag su demee ba matal nag fukki fan ak juróom nag fa mu ko tàmbalee gis ak tey mat na fukki fan ak juróom ba noppi deret ja mi ngi continuer rek di ñëw wala mi ngi dem ak a ñëw rek su boobaa na xam ne loolu feebar la loolu mooy istixaada daa war a dem seeti gynécologue pour ñu xool ba xam lan moo ko gaar pour mu jéem a faj tawat jooji ko dal waaye su boobaa loola moom du ko tee julli su waxtu julli jotee day defar ba set sangu dem julli may nañ ko foofu nag muy boole ay julli ndax dafa xaw a metti julli gu jot gu ne nga sangu moo tax julli gu fajar da koy sangul ca ngaayam bu tisbaar jotee mu sangu beneen ca ngaay boole tisbaar ak takkusaan julli leen bàyyi ba gee jot mu sangu beneen cangaay julli gee julli timis ak gee wala bu timis jotee mu def ko julli timis julli gee maanaam dana sangu ñetti yoon ci bis bi ñu woyefal ko ko mu bañ a nekk juróomi cangaay waaye nag mu dem faju ji kon loolu la ñuy xàmmee reegal ak li ñu tudde jor ngel naam
waaleykum salaamaaleykum rajo salaam
li ma la laaj mooy kon ci nodd bi masalan lu mel ni waxtu ajjuma waxtu waxtu ajjuma ajjuma maanaam aljuma waaw waaw aljuma léegi nodd gu jëkk bi ndax boobu tamit dana war a xaar ba waxtu bi dugg ñu soog ko nodd wala déet mooy nodd bu jëkk bi beneen bi mooy tamit si jàkk yi léeg-léeg da ngay gis ni yenn yi li xaam gi dañ koy bàyyeek muazin bi léeg-léeg imaam bi moom mooy wax nanu liqaam léegi ñoom ñaar kan moo ci war a taxawal li nga xam ne moom mooy liqaam bi beneen bi mooy kii day laaj mu ne ñu def benn benn ajjuma nodd gu jëkk gi bu zawaal jotee rek zawaal mooy dugg waxtu wi foofu la war a nodde nodd gu jëkk gi nga ca tegu nag saa bu imaam toogee ci minbar bi ñu nodd ko noonu rek lay demee bi ci tegu laaj bi ci tegu waaw ndax ki nodd mooy liqaam wala kii mën naa nodd keneen liqaam ok lu ci nekk mën naa no mën naa nekk su fekkee kii daal moo yor fonction nodd ak liqaam mën na ko boole di ko def même bu doon imaam ji sax bu ko neexee muy nodd di liqaam di jiite dara nekku ci waaye nag bu dee moom daa féetewoo di jiite ñu wut keneen koo xam ne mooy nodd di liqaam loola baax na su dee dañoo wut koo xam ne kii mooy nodd kii mooy liqaam it lu mu ci mën a doon na doon lu organisé wu ba xëccoo du ca am rek te kenn ku nekk lañ la jox nga man ko loolu rek mooy li ci am solo waaye mbir moom moom lu simple la imaam sax dana xutba ba àggal jox keneen mu jiite su fekkee ne dafa am ngànt ndax léeg-léeg imaam doonul koo xam ne léeg-léeg imaam cib chaise lay julli day toog di julli su fekkee am nañ kuy taxaw di julli kooku moo gën a yooyu ci imaam téewul nag mën naa taxaw di xutba mën naa toog itam ci tawam waaye bu dara desut di rukkoo ko sujjóot nag ak agsi ci suuf mënu ko su boobaa rafetlu nañ sunnaal nañ sax bu xutbaa ba noppi ba dikk toog ci seesam mu jox keneen nag mu jiite julli su boobaa day baax rek
asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaam
shifaakum allah shifaan aajilan amin ya rab wa amarakum adidan léegi li mu bëgg a laaj foofu mi ngi aju si masala bi nga junj woon sànq te mooy yoonal bi nga xam ne yoonal nañ ko aju nodd ji mu jël ñaari baaram dugal ko si ay ñaari noppam ñu ne foofu lu wa li ko waral mooy pour kàddu gi gën a foor waaw bu dee suñu jamono ji comme microphone yi fi nekk nit ki bu noddee kàddum day foor ndax kon boobaa kon dina ko jar kon muy jël ay baaram di ko dugal si ay noppam jazakumullahu xayran ala kulli xaal du caagi ni ba léegi fooy nodde fu ne rek am na microphone bu fa nekk ba léegi nit ñaa ngi nodd ci àll bi ñu ngi nodd ci béréb yoo xam ne ay rajo amu fa kon sunna boobu ba léegi mi ngi fi waaye nag su demee ba gis ne moom mii aajowoowut yëkkati kàddoom ca kaw ma kàddoom mën naa woyof te du tee danañ ko dégg su boobaa sunna si mën naa mën naa woyof waaye nag nga xam ne foofu sens bi fi am ak li lu am solo li fi am solo mooy tàmm gi muy tàmm def noonu tàmm googu mu koy tàmm même su fekkee dem na foo xam ne microphone a fa nekk mu wóor ko ne du yëkkati kàddoom ci kawit mu bàyyi baaraamam yi ci nopp yi ngir bañ a tàmma nodd te deful noonu loolu ci boppam ngir mu làggi ci jar na mu bañ koo bàyyi ndax mën naa dem foo xam ne microphone nekku fa mu bëgg a nodd ba noppi fekk fàtte woon na loolu ndax defatu ko woon mu bañ koo def te su boobaa bàyyi na sunna ci sunna yi nga xam ne sunna yi nodd la
salaamaaleykum wa rahmatullah salaam wa rahmatullah
règle tajwid laa doon xool est-ce que war na bokk ci nodd aw déet moom lan tajwid tajwid non
alakuli xaal téere fiq yi ñi ngi ciy wax tajwid nag dafa am ay xaaj yu bokkul bu fekkee ne li aju ci li ñu tudde maxaarijul xuruf la muy xaraf wu ne génne fa mu war a génne ci gimiñ gi wala ci tuñ mi wala ca wanaasu ga loolu boobu maxaarij moom mënta ñàkk ci nodd parce que léeg-léeg nit ñi nga dégg ñuy nodd di wax baat yoo xam ne bokkut ak baat yi nodd wax dëgg yàlla la ñuy wax bokkut ak la tax ñuy wax léeg-léeg nga dégg koo xam ne na muy waxee xayya ala salaa leneen lay wax hayya lay wax hayya ala salaa am ñoo xam ne daan xayya ala alfalaat xayya ala alfalaat falaat mooy ab àll ba wax ji day soppi ko kii day wax ne xayya ala alfalaax kaay leen ci texe gi moom mu ne dem leen ci àll ba kon loola baat yi day daal di soppi ko su fekkee ne tajwid ba daa jëm ca luy soppi maanaama loola moom mënee su ko bañ a def amma lu aju ci nag ndax baat yeñ war a xunna dañ koy xunna att yu sew sewaan yi ci biir tajwid yooye la boroom xam-xam yi juyoo naan ndax des na ko def ak di su ko def ala kulli xaal ñàkk ko def du yàq nodd ga su ko defee day gën a mat nag masalan muhammadan ak rasulullah xam nga ne tanwin bu ca raate ko am na atte ashadu anna muhammadan rasulullah la léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañuy juum foofu ñu ne ashadu anna muhammadan rasulullah loolu njuumte la ci tajwid wala kenn ki ñëw ne ashadu anna muhammadan rasulullah mu ëpp noonu at du noonu ëpp na xeeti tajwid yu mel noonu lu sew lu xóot la waaye nag wattu cee juum lu lu jaadu la moom itam wallahu alam xool al asila al maktuba
bismillah kii day laaj jigéen ji nga xam ne dañ koo fase pase moo xam ne pasem fayli la yàlla dogal idda ji jeexagul boroom kër ba maanaam ki ko fase woon faatu xam nga ne foofu donn dafay am waaye ndax day continuer ci idday passé wala day toxu ñëw ci idday ténji waxu kay day toxu ñëw ci idday ténji ci li jumhurul ulama wax li ëpp ci borom xam-xam yi nee nañ passé moom yi nga xam ne passé fayli la woon téewul woon mi ngi ci buum ndax saa bu ko neexoon mu delloosi ko te kenn mënu ko woon a ñëw di ko takk kon mi ngi ci ismatu rajul la nekk su fekkee kim nekkoon ci ismaam nag faatu na day toxoo ca idda jam doon def ñëw ci idda ji ñu tudde idday téeñ ji loola moo tax mu sañ koo doon ilu nisaa fi lmaxiid xata yathurna tatahur boobu lay laaj bu leen jege jigéen ñi la ay alquran wax su fekkee ne dañoo gis baax ba keru ñuy laab laab googu lay laaj mooy lan ndax mooy deret ji dog wala mooy deret ji dog ba mu sangu lu ci nekk ay borom xam-xam wax nañ ko waaye li wér mooy bu deret ji dogee moom dagan na dagan na borom këram su dee nag dafa bàyyi ba mu set ba sell nag loolu mooy la gën a baax mooy la gën a mat waaye fu deret ji doge ba mu wóor ne moom génn na ca reegal ba su boobaa daal nay dagan noonu la mbir ma demee. joxal kenn foofu.
tey alhamdulilah ñu ñaanal cheikh bi yàlla subhanahu wa taala barkeel xam-xam bi yokk fan yi kon ñuy jëriñ ci moom incha allah laaj bi ñu amoon wala laaj yi ñu amoon mooy li nga xamante ni mooy askar yi rot ci nodd ak liqaam bu fekkente ne kii nodd dafa wax achahadatay ni ndax bu boobaa foofu ki nga xamante ni mooy topp ci noddukat bi dafay wax achahadatayni wala dafay wax wa ana achhadu an laa ilaha illa allah comme ni mu rotee ci yenn xadis yi beneen bi mooy ci wàllu iqaama ndax dañuy todd ci dañuy topp ci kii iqaama comme ni ñuy toppee ci kii noddu wala bu fekkente ne dafay iqaama dañuy déglu wala sax léeg-léeg nga gis ñoo xamante ne bu fekkee kii iqaama dafay iqaam ñoom dañuy yëkkati seen loxo di ñaan foofu daal lañ doon laaj yan teggin moo farot incha allah
waaw yonent bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam daf ne ida samitum almuaddina fa qulu misla ma yaqul su ngeen déggee kii nodd wax leen lu mel ne la muy wax kon doo toog naan wa ana ashhadu déedéet lam wax rek ngay wax nee na allahu akbar allahu akbar neel allahu akbar allahu akbar misla jim wax nag misliya boobu waxuñu ne day day mel noona ci lépp maanaam nam yëkkatee baatam waxuñu nga yëkkatee noonu sa baat waaye su yëkkatee baatam ne allahu akbar allahu akbar yow waxal ci suuf nga ne allahu akbar allahu akbar lum wax lu ne da nga koy wax lu dul fi muy waxe xaya ala salaa ak fi muy waxe xaya ala alfalaax foofu da ngay wax ne laa xawla wala quwata illa billah kese mais feneen fu mu mën a doon ak kay nodd lam wax lu mu mën a doon lu mel noonu da ngay wax liqaamit moog nodd ñoo bokk ab àtte foofu kay taxawal la muy wax toppal ca moom di wax ca suuf lu mel ne la muy wax li ko waral mooy liqaam ci boppam nodd la ak nodd la ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam tudde na ko ko nee na bayna kulli adanayni salaa diggante ñaari nodd yu ne daal ak jullee nga fa ba mu ko waxee ñetti yoon mu ne liman shaa maanaam saa buñ noddee diggante nodd ba ak liqaam ga ku fa bëgg a julli sañ ngaa julli naafila sañ ngaa julli ñaari rakka kon adanay ni la ko tudde ñaari nodd yu ne ginnaaw nag liqaam nodd la tudd te nee na ida samitum al muaddina fa qulu misla ma yaqul su ngeen déggee kii nodd wax leen lu mel ne li muy wax kon kay liqaam da ngay wax lu mel ne la muy wax moom itam ni nga koy defee ci nodd allahu alam salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam yàlla yàlla gën laa aar sëñ bi jégal seen bàkkaar nangu suñuy jëf yu baax aar la waaye dama doon laaj tamit comme exemple dañoo ne tey soo nekkoon sa place nii nit ñëw bëgg laa abbu xaalis fekk xawoo kaa wóolu nii mu ne léegi pour mu jox la dix mille nga al ko ci deux mille cinq cent bu mu fay ku muy jox wala nu mu demee léegi nee loolu day dugg ci riba beneen bi mooy comme ni ñuy waxee ni si wàllu liqaam bi nga doon wax nii comme ñeen ñi ni ne suñ ne allah akbar allah akbar wa nga yow ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah nga dégg ñu ne sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu tamit am na ay si borom xam ay wax ki ngay àbb dafa am lu ñu tudde rëhën maanaam mooy li ñu tudde garantie yow daal li nga soxla xëy na danga yor dix mille francs te amuloo weccet mu ne la xaaral ma abal la deux mille francs téye dix mille yi ba nga indi sa deux mille francs yi ma jox la dix mille noonu la da ko fee garantie boo boo indee deux mille francs mu jox la sa dix mille nga dem loolu am njaayante amu fa wecce amu fa waaye kii da koo lebal
mu def fa li ñu tudde rahan maanaam da ko faa tayle saa bu ko fayee mu jël ko yóbbu loola dara nekku ci gis naa nag ay fatwa yu bees yoo xam ne seen borom dañ caa tachaddud lool xaw caa ëppal ba wax ne loolu ribaa la waaye loolu moom gisuma benn wëcc ci ribaa yi nga xam ne moom la ñu wax ci fiqul islaam yi boo xam ne am na ca ndax ribaa benn mu nekk ribal fadl nga xam ne da nga koo lebal fukk mu fay la fukk ak benn kooku ribal fadl wala ribal nasia mu ne la lebal naa la lii soo ma ko mënee fay feeg fukki fan li ma la lebaloon nga may fay waaye bu ca benn bés jegoo nag da nga cay teg 5 pour cent nga xam ne yeex gi moo tax mu yokk boobu mooy beneen façon riba bi lii nag amu ci benn foo xam ne loolu fay nit ci ndax jamono bi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci nodd gi ak liqaam gi ndax day wax sallallahu alayhi wa sallam déedéet jamono yi muy nodd waxal li muy wax ndax nee na la woon soo ko dégloo ba mu jeexal jullil ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu teg ca ne am na ñaan koy wax allahuma rabba hadihi daawati taama wa salaati alqaima aati muhammadan alwasila mu ne summa sallu alayya fa innahu man salla alayya salaatan salla allahu alayhi biha ashran su jeexee nag nee na ngeen julli ci man su ko defee ku julli ci man benn yoon yàlla dana julli ci yow fukki yoon kon julli googee nga dara julli moom nga yeexee ja muy ya muy wax ashhadu anna muhammadan rasulullah moo tax da ngaa doyloo rek wax lu mel ne la muy wax ndax xam nga ne su noppee da ngay julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain
دعوة ربي بارك فيها علماء فاضل حافظوا عليها دعوة ربي بارك فيها علماء فاضل حافظوا عليها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وأقولها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس سلفي وأقولها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس شفت القيم أبو إدريس علي وحكمة مسخروا ليها علي وحكمة مسخروا ليها دعوة ربي يبارك فيها وعلماء فاضل حافظوا عليها دعوة ربي يبارك